ndam nga ñëw dama koy jël lamb ji dama koy jël lu leer laa lay tegal <laughs> tegtal la wala bot say bot ubbil say bot lamb ji dama koy jël incha allah waaw ragaluma loolu jaajëf Cheikh Tidiane loolu da ci gëm sa bopp la digg ndeysaan Cheikh Tidiane Niang ku ne xam na ko ci bëre simple yàgg naa bëre ci compétition yi di jël ndeysaan moom Cheikh tiijaan Niang ndeysaan Cheikh tiijaan Niang julloo na mbokk yi Cheikh Tidiane Niang moo noonu ndeysaan mu ngi di leetoo Cheikh Tidiane jàpp na ko di way Cheikh Tidiane Niang ndeysaan jël na tànk ba Cheikh Tidiane daan na ko <laughs> Cheikh Tidiane daan na nee na ponkali la soxla soxla stade ba yuuxu nañ nee soxla billaay nee na ñëpp nee na ñëpp lamb dugul gëm ponkali soxla nee Cheikh Tidiane Niang ndeysaan ma ngay dimbali nee na ñëpp Cheikh Tidiane Niang nee na ñëpp day dundal lamb xale la ndeysaan cey Cheikh ma nga noonu matt na Cheikh Tidiane Niang la ndeysaan wallahi ku ko gis nii mu toll nga xeeb ko matul matul cent cinquante kilos waaye ñi mat cent cinquante kilos xoolu leen ci jàpp nga xam ne champion la Thank you. ma nga noonu ci digg géew bi Cheikh Tidiane Niang moo ngemboo ngemb lu xonq li wan leen ginnaaw mbokk yi bi mooy troisième combat am ci compétition bi lamba ngoog ndeysaan booy dugg yaay duggal sa bopp buñ la daanee nga bañ a génn say mbokk jàpp la booy fay takk na sele daan na ko booy fay daan na sele ee eh, Boy Faye éliminer Sélé Mélé Boy daan na Sélé ee eh, surprise am na ci lamb Boy Faye éliminer Sélé Mélé ñu ngi fële ci Cheikh Tidiane Niang nay moo leen wan ginnaaw ngem boog ngem lu xonq li Cheikh Tidiane ndeysaan ko ngemb ngemb lu weex li ñaari mbër yaa ngi noonu ba tey Adama naanaan yi daanu nañ Sele Mele éliminé nañ ko léegi Boy Faye moo éliminé Sele yi ñu ngi noonu ci compétition bi Cheikh Tidiane Niang moo leen wan ginnaaw jël na tànk ba Cheikh Tidiane Niang ndeysaan ndeysaan champion yaa ngay dugg benn par benn ndeysaan assurance bu Mbour moo nekkee ne la mbokk yi compétition bi. sëq na ngemb plaqué nañ Cheikh Tidiane mu bañ bëgg naa jàpp ngemb adversaire am bañ na Cheikh Tidiane taxabal na ko dina daanoom déet daanuwut Cheikh Tidiane ngi gën a jàpp na ci ginnaaw jàpp na ci ginnaaw ngemb la lu mu daan na oh Cheikh Tidiane génnaat na Cheikh Tidiane <laughs> association des promoteurs de Nambaka Stadium Iba Mar Diop a tegal plus que 5 millions 5 millions 5 millions dana tegal plus que man le 12 janvier mana Stadium Iba Mar Diop place publique fa Diofior a tegal plus que 11 nak na xarbaxay fo nak leng fo 330 000 cotit na le 3 janvier bo le 6 mana Diofior Souley Diagne fo Mbaye Mbour na ndef ka le 5 janvier association des amateurs de lutte sans frappe fe Sénégal den ngoytuyo a tegan tirke 1 million mana arène Adrien Senghor 1 million arène Adrien Senghor wa anam sedudu fe a joona den teganu tirke maaga 1 million arène Adrien Senghor Faya Mbodj fo Maodo na ndef kama bo le 1 janvier manarena terrain galgi terrain galgi jak sexoy na nuun xaye oxe ɓata xoya nuun mana terrain galgi a tegan pir ke un million le premier janvier koy arta fa a tombe ka mbayam ruum fo mbumo ngom na ɓat ka ndef maga mana saxlana leyelo ɓofo lulu forofo jaxaw le 31 a jega jom maak jom simple den nak jom xawa mbiya nda jom simple a fi అతికన్నా కథపికన్న మాకు పిరికి ట్రంట్ అయితే మన ఒక్కొక్కరు Boraé, comité de gestion de l'Utfé Koumbal, a rejoint le 25 janvier, à Tegal Pirke 1 million 500, euh, Morgo, Fonday Fotou, Adama Jali, Nadef Kamaga. Voilà, donc Kenny Naoumen annonce lamba ngi ne mbokk yi Cheikh Tidiane ngi nii moo finalu Jax production le 29 décembre 2019 une date à retenir. ndeysaan ndeysaan sëñ Bass waaw ñaar yëpp la bàyyi jili ñaar yëpp la parce que borom bi la may wër ak tal nga nekk fekk say morom ak say maas ngeen bokk li ngeen soxla bokk li ngeen di ñaan yàlla jagleel leen ko ngeen war a finaalu ndimbaluk suñu borom la mais ak njàmbaar moo ci euh, moo ci moo dell parce que ñi fi nekk yëpp ay góor la yàlla lañ liggéey nañ li ñu war a liggéey euh, auparavant am nañu doole mën nañoo bëre te ñi nit ñi it xam nañ leen ci lutte sans frappe dëgg mais doole gi ci xam-xam a ngi ci ndax lamb xam-xam la doole boo ko mu jox lamb lamb boo ci génnee xam-xam ak doole bàyyi ji li nekkatul dara xeexu mbedd la waaye nekkatul lamb maa la wax loolu. Elimine François Gomis jël na ko Cheikh Tidiane jël na ko génn na saako yi eh, Cheikh Tidiane sàcc na ko jël tànk ba Cheikh Tidiane ak Franc Elimine ak Cheikh Tidiane Cheikh daw na jëli ko bañ na Franc Cheikh Tidiane Cheikh Tidiane taxabal na ko mu bañ Franc ndeysaan oh! final bi ndeysaan Cheikh Tidiane moo ngem moo ngem lu xonq li mbokk ma ngay daw jëlaat na ko maa du ñàkk jël nañ tànk ba Tidiane daw na jël ko mu bañ ndeysaan élimine François Gomis ak Cheikh Tidiane Niang ndeysaan ñu ngi ci compétition bi ba ci compétition bi ba Tidiane Niang mbokk yi ñu ngi ci digg géew bi ndeysaan ña nga noonu cey lamb final poids lourd Diaks production arène nationale lamb ju neex ndeysaan ñaari mbëru simple ñaari mbëru waada ñaari mbër yoo xamante ne fu ñu duggee ci làmb nga xam ne ay borom jom lañ muy Cheikh Tidiane muy François Gomis Cheikh Tidiane daw na jëlaat tànk ba déet man nga koy biit bañ na Cheikh Tidiane nga koy suuf Cheikh Tidiane élimine France Franc daan na ñaa ndeysaan Franc daan na Cheikh Tidiane Niang cey lamb Franc daan na Cheikh Tidiane Niang bas Cheikh Tidiane dem ba final ñàkk di jooy dafa bëgg ndam ndeysaan ndeysaan jooy